jërë ngeen jëf mbokki Bawal Info TV mbokki nag tey dañuy ñëw ci frustration bi nga xam ne moo am ci Benno Bokk Yaakaar ak APR fii ci département bu Mbacké rawatina fii ci Touba ndax dañoo gis ne militant yu bëree bëree bëri war nañu ginnaaw Macky Sall ndax ànduñu ci candidature Amadou Ba tey ku ci mel ni soxna am say Mbacké ñëpp ràññee ko fii ci wàllum politique bàyyi na Macky Sall dem na ànd ji ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ki nga xam ne tey mooy Adja Mère Soda ñëpp yàgg koo dégg muy défendre président Macky Sall bàyyi na benn Bokk Yaakaar ak lu taq si ñoom ki nga xam ne tey mooy soxna Ami Yaaba Diop nekkoon fi ancien député euh, jiite jigéenu AFP yi ci région de jurbel bàyyi na benn bokk yaakaar dem na ànd ji ak Aly Ngouille Ndiaye ki nga xam ne tey mooy Aïda Gaye nekkoon fii ay jamono ancien député jiite woon fii jigéenu PDS yi mujjoon bàyyi PDS dem fekk ji Macky Sall Aïda Gaye moomu bàyyi na Macky sàll dem na ànd ji ak ki nga xam ne mooy Birima Mangara ndax fan yi ñu génn sax am na délégation boo xam ne jóge woon na Touba dem dakaar gisante ak Birima Mangara Aïda Gaye euh, ci la nekk ndax Birima Mangara fi ñu toll nii dafa am ñu nekk ci ginnaawam ñoo xam ne ñu miin dëkk bi du Touba di ko defal opération am na tamit responsable yu bëri APR yoo xam ne ànd nañu ak Aly Ngouille ñii dem nañu ànd ji ak Mahammed Boun Abdallah Dionne ñii dem nañu ànd ji ak Birima ak Birima Mangara léegi nag APR benn Bokk Yaakaar ñoom dañoo yàgg ami jafe-jafe fii ci Touba waaye siini jafe-jafe day gën a yokk ndax nag ñu bari dañu naan Macky Sall daawul gañe Touba teewul ma ngi gañe dëgg la waaye électorat Touba képp ku koy minimiser xamoo li xew képp ko koy minimiser xamul li xew ndax Benno Bokk Yaakaar plus de soixante mille nangam voix yi doon am Touba am na sax gox yoo xam ne mënuñu ko saa am ndax électorat Touba si boppam moo toll noonu électorat mën nga ko méngale sax ab électorat département département lëm léegi nag euh, ñu bëree bëree bëri dañoo àndul ci candidature Amadou Ba am na ñoo xam ne nag ay jigéen ñi nga xam ne waxtaan naa ak ñoom am na si jigéen yu bëri ñu ma waxtaanal nee nañu li tax ànduñu ak Amadou Ba mooy dañoo jubluwut ki nga xam ne mooy Fat Diané te ñoom gis nañ ne Fat Diané Amadou Ba lay jàppale waaye jigéen ñi may ñi ma si jot waxtaanal comme ñoom nee nañu jubluwuñu Fat Diané moo tax mënuñoo jàppale Amadou Ba ñenn ci góor ñi tamit ñoom nee nañu mënuñu fee bàyyi Aly guy Ndiaye wala Mohamed Boun Abdallah Dionne wala Birima Mangara dem di jàppale ji Amadou Ba ndax am na ñoo xam ne nañu Amadou Ba boo ko yóbbu woon tey 28 mënulaa yóbbu xayra laa yóbbu sura léegi nag li nga xam ne mooy tënk bëri na ñoo xam ne ràññee nañ leen ci APR Benno Bokk Yaakaar wax nañ ci wane nañ ci kaw ne Amadou Ba la ñuy àndal waaye loolu du lu wér dañoo frustré ci suuf di ko ndax àdduna dafa ñoo xam ne am nañu courage wax ne ànduñu ak Ba waaye am na ñoo xam ne amuñu courage boobu waaye ànduñu amulu Ba ba pare toog na patta pataaral patta pataaral noppi ci suuf ñooñu nag mooy ñi nga xam ne bu ëllëgee si biir bu leen amul ba joxee xaalis pour ñu campagnal ko dañu koy lekk ba pare toog seen kër moo tax jamono ji APR Benno Bokk Yaakaar am nañu ay jafe yu mët sëkk fii nga xam ne tey moom mooy Touba ginnaaw nag bi nga xam ne ab délégation jugéena tubaa dem si Dakar seeti Birima màngara am na ay ministre yoo xam ne ñoo ngi woo benn benn ñi nga xam ne demoon nañu seeti ki nga xam ne mooy Birima Mangara léegi nag njaw ma ngi woy di desu xam bi ndax xam ngeen ne politique euh, fii ci Touba jigéen ñi dañ si am solo jigéen ñi dañ si am solo ci wàllum politique ndax ñiy faral di wor ci politique góor ñi ñoo ëpp lu ñuy faral di wor ci politique mais jigéen ñi li ñuy wor ci politique bëriwul te gis nañ ne Benno Bokk Yaakaar APR fii ñoo ngi ñàkk ay jigéen ñu bëree bëree bëree bëree bëree te boo xoolee tamit Euh, Macky Sall ni muy politiqué mooy góor ñi la gën a jox bopp fii ci Touba ak jigéen ñi te jigéen ñi aussi am nañ liggéey bu am solo boo xam ne moom lañ ci war a moom lañ ci war a def léegi nag lu jëm ci kaaw Fat Diané am na ñoo xam ne ne jubluwuñ ko moo tax jàppalewuñ Amadou Ba waaye am na ku tudd Bintu Diop koo xam ne chargé de mission la ministère de la femme moom nee na ki nga xam ne mooy Fat Diané def na liggéey bu am solo ci tuubaa dugal na fi ay financement jël na fi jigéen ñu jigéen ñu bëree bëri bëri def leen ay chargé de mission nee na tamit Fat Diané événement bu jot ma ngi jàppale ñi nga xam ne tey ñooy ay jigéen nekk fii ci Touba ak ñoo xam ne ay góor lañ loolu chargé de mission Fat Diané moo ko wax ginnaaw bi ma jokkoo ak moom laaj ko réellement lan moo tax ñenn ñi jubluwuñu Fat Diané mu ne ma am nañu ko jubluwul naam dëgg la neena sax am na ay chargé de mission yoo xam ne bàyyi nañ jàppalewuñ candidat Benno Bokk Yaakaar bi léegi nag mbokk yi ma ngi noonu Bawol Info TV